li ma wax léegi rek laay waxaat ci commencement bi Papa Yade daf ñu ameel combat. ci commencement bi Papa Yade ñu ameel combat. waaw non loolu nañ ci wax pël daf ma ameel combat bi ma meelee combat. ñu ngi taxawalee combat bi Medina sama benn kër xay bu ñu wax Moustapha Mbengue ñu yëkkat 300000 jox Papa Yade yëkkat 300000 jox anti ci teewaayu Matar Ndiaye menacé Papa ci teewaayu Sourou Fall menacé anti. ci teewaayu anti ak papa Yade tamit. image yaa ngi fi yaakaar naa yëpp ngi doon daw. bi ñu leen joxee avant trois cent mille la ñu dem ba jëmi jamono maam ñaa woowaat ma ne ma kat papa nee dut mën a bëre combat bi ndax ay supporter am ne duñ bi bi papa wax bi ma maam ñaa wax lool ma ne ko ah maam ñaa mu ne ma ne ko ma de papa Yade dina bëre ndax combat laa seq ak moom seqoon ak moom leneen dina bëre combat bi de mu ne ma ah ma ne ko waaw ñu doxaat ay tuuti maam ñaa woowaat ma neyaat ma fàllu booy wax ne dañ ma di xaay bi ma ne ko ah man de bu leen lee xaay ko jël ndax papa yaa du ma mel mu ne ma ah ma ne ko waaw ñu mu woo ma xamal ne ma ne booy nañ xaalis bi waaye matut la de moom maam ñaaw ma ne ko ah, ma ne ko maam ma ne ko su xaalis matoon man Fallou Ndiaye du ko jël ndax papa yaa du ma mel. comme demee noonu nag mu naa ne ko nañ bàyyi combat bi ci loxo yoon yoon géré ko. Ah, waaw loolu laa ko wax mu ne ma ah, ma ne ko demoon nañ ci yoon sax jotuñu cee bëgg dem yoon ndax wax day leer ndax te boo ci bu ci fen mm-hmm. ma ne mu ne ma ah, ma ne ko waaw maam ñaa jotoon na këyit woon ne yoon moo jox mm-hmm. mu ne ma ah ma ne ko waaw ma ah combat bi kat mu ne ma ne ko ndax anti dañ ko jox xaalis jox papa de xaalis te dañuy protéger suñu xaalis bi ñu jox anti yaakaar naa lu ne xew na fi muy anti muy papa yaadu ku ne wax na fi waaye bu ma ci waxee benn yoon dégg seen i wax ma commencé nag moytu wax ji ndax ku ne déglu naa na nga waxee te su ma leen toppee mën naa ëpp loxo ma bàyyi wax ji man topp sama procédure li yoon wax bi ma koy topp ba yàlla def li mu def ma woo samay xarit ñu am na may ànd ak ñoom ci Ndiaye production muy am ni Moustapha ak Fallou El Capo ak moor am ni Moustapha ci la woo Pate Pési bu école de Ribon Faram ne dañoo bëgg ñu jaale ji bi ñu départ dem Tëngéej non avant boobu sax am na lu jiitu loolu. li jiitu loolu mooy man yëg naa ne xaalis bi am na lu ci maam ñaaw jox Matar njaay bi ma yëgee loolu ma woo maam ñaaw ne ko maam ñaaw mu ne ah, ah, bi dégg naa da nga am loo ci jox Matar Ndiaye mu ma dama koo ma ne ko ah maam ñaaw xaalis bi de comme dafa xaalis waroon lebal Matar Ndiaye xaalis bi ndax lebal ko ci bi kat mën naa ni leneen. xaalisu avance bi ah, xaalisu avance bi woon ci la ko lebal. Mm-hmm. ma ne ko ah mu ne waaw ma ne ko ah waroo ko woon a lebal de mu ne maa mu ne ko waaw ci laa woo Matar Ndiaye ci saase ne ko Matar damaa dégg ñu maam ñaar loo jox ci xaalis papa yaat bi pour lebal Matar ne ma dama koo lebal ma ne ko wóoruloo cee lebal ndax xaalis na lu man demee da ngaa ñàkk ba xaalis bi ndax xaalis bi dafa ne ci contentieux wax mu jeex kon xam nga ne xam am na lu mu ci yor xam naa ye papa yaat am ah, safurla ah, doomu da kii maam ñaa am na lu mu ci ñaa tamit nee ma lee ko jox matut kon jàpp naa ye lu mu ci yor bi may dem Tëngéej jàpp naa loolu ndax loolu lépp xew na avant ñuy dem Tëngéej bi ñuy dem Tëngéej ba ci yoon bi prise bi ñu àndal ne gars yi ah affaire bi xaay pa xaay bi ba paya damee woon Fallou bi naa ñu waxtaan bu ñu nee waxtaan ci ak maire bi pour ñu xool nu ñu ko jéggalee mu ne ko paate prise bi mu ne ko wax jooj du waxu fan jëm ndax maire bi ñu seet dafa nekk ci xar li may wax nag ñoom ñëpp ñu may dégg ndax paate may dégg maire may dégg ci su ma àggee ci li ma wax ci kanam bi ma ne ko paate mu ne ma ne ko bu ñu wax foofu ñu discuter ci noonu discuter ci gars yi ne a war a wax ñii ne waruñ cee wax ñu discuter ci après ci lañ jëm ci doomu dàngu <clears throat> bi ñemee ci doomu dangu gars yi wàcc man taxaw doomu dàngu ñëw ñu waxtaan doomu dàngu expliqué ñu ñu jillante biñ nee ba kër Papa Yadda ñuy waxtaan ci mooto amaa ñuy wàcc sax nee nañ lañ lay jaalee man laaj naa posé naa gars yi question boobu ci la PSI yëkkati 5000 francs jox ma noonu dafa yëkkati 5000 francs téye moo parcelle jox ko 5000 mu yëkkati 15000 muy 25000 ñu def ko ci benn enveloppe jox ko Amdi Moustapha Amdi Moustapha jaale ko yaay Papa Yade biñ demee ñuy waxtaan ci la parti PDS leeral yow ne kat combat bi nga xam ne Fallou Ndiaye ko amoon ak Papa Yade bëgg nañ ñu waxtaan ci ñu xool bu fekkee am lu ci ñu jéggale ko. bi waxee loolu maire bi ci la jóg na ko parti wax ji de woon bi ndax loolu laa leen waxoon ci oto bi ndax fitna lay indi te lu yee fitna jël wax dañ fee ñëwoon pour jaale si jàmm. ñëwuñu pour fayoo ko xaalis ñëwuñu ne nemmeeku si kenn dañu fee ñëwoon pour jaale si mais bi tëj buntu këram ne nag bala ñu génn kër gi day leer moo woo ma daan jaay téléphone ne ko lu koy leeral maire bi mais bi ne ma li koy leeral mooy ma dégg ma taar dégg ma am ñaaw ñu wax ma lu leer ma ma daan jaay téléphone jot ko ne ko ma taar bëgg ñu leeral xaalis bi nga xam ne moom lañ seex ak papa yaat dina la demee ma taar ne ma am na lu ma ci ma am ñaaw jox ma ne ko ñaata la mun ma jàpp ma ko lii la ma wax yaay ma ngi toog yaay a ngi toog ma ko lu ci maam ñaaw yor mu ne laaj leen ko maam ñaaw. ma ko moom ko jox jàpp. lu ma laaj leen ko maam ñaaw nii ma ko ma daal waxee bi ma ko waxee noonu mu leer ma ne ko nga mu ne ma waaw mais bi ma ma daal de li mu wax nii du waxee ku jub du waxee ku leer ndax mën naa wax li mu ci yor wax li ci maam ñaaw yor ma ne ko maire xaa ma woo maam ñaaw ma woo maam ñaaw dem boîte vocale ma ne comme jot naa boîte vocale jëwri yow ngay déplacé wu baal man ma déplacé wu dem fi nga xam te ni mooy kër maam ñaaw waxtaan ak moom bi ñu àndee ak ñi ma àndaloon ñu dem ba kër maam ñaaw fekkuñu ko fa doomu daa génn seet ko andil ñu maam ñaaw bi ñëwee ñu toog sama oto ma posé na ku ci wax loo xam te ne indi fa fitna comme indi fa fitna nag su ma sañoon ñu leeral ko benn yoon mu dem. ma daal maam ñaaw ne ma nu mu demee ma leeral maam ñaaw ni mu demee maam ñaaw ne ma am ah, na ma ne ko maam ñaaw dama bëgg na nga wax ma bi nu demee ba leer ndax ma lii la ma wax maam ñaaw ne ma ma daal wulaal ma maa ngi maa ngi ko lebal ci xaalis bi deux cent quarante mille man ma yor ci trente mille ñun menaces yi ñu yor ci trente mille muy soixante mille ak léeg bu ñu ko boolee ak quinze mille francs yi dañ ko génne woon transport bi ñuy dem ma ne ko mais man bi ma bi ma wooyee da nga ne ma bi kat booy tënkee ji andil nañ ma ko waaye am na lu ci des. kon xaalis bi waaw baal ma pare rek pël. ma ne ko ma ne maam ñaaw ah boo ma waxoon ne ma xaalis bi day deux cent soixante dix mille ndax dama ko laaj loo jox yaay loo joxoon yaay Papa Yade mu ne ma deux cent soixante dix mille laa ko joxoon ma ne ko deux cent soixante dix mille nga joxoon mu ne ma deux cent soixante dix mille ma delluwaat ko kon bi ma wooyee waruma wax ne am na lu des ci ñoom mu ne ma non boo gisee may am lu des ci mille francs yi ñu joxoon transport comme dañuy delloo rek dañoo war delluwaat lépp waruñu la ameel dara di la mam ñaa ma ne ko mais mu leer bu leeroon rek yaakaar naa kenn du ne Papa Yade dañ koy jéggawa dañ koy baal yaakaar naa doo am ndax ñun xamuñu lu mu ñu yoreel xaw ma ma taal ñaar la ci yor xaw ma maam ñaaw ñaar la taal ñaar la ci yor ku ne somme ci yor exact xaw ko bi ma waxee lool ma ne ko ah kon nag leer na léegi nañu wooy yaay papa yaad ñu wooy ba yaay papa yaad maam ñaaw ne ko deux cent soixante dix laa la joxoon deux cent soixante dix ji bi joxaat na ma deux cent soixante dix mille ma ne ko meer kon leer na mu ne ma ne ko kon papa yaadu yóolu ma benn dërëm mu ne ma yóolu la benn dërëm mu ne ma alhamdulilah ma ne ko alhamdulilah ci laa mais bi def sorti ne Fallou Ndiaye ne ne Matar Ndiaye moo lekk xaalis bi te ma wax dëgg yàlla waxuma lool nag ndax ne moom Matar Ndiaye moo lekk xaalis bi waaye li ma wóor mooy xaalis bi mu ngi ci entre Matar ak maam ñaaw ndax ma maam ñaaw Matar amul kenn ku ci dànk xaalis bi ni mu toll ñëw di ko indil Fallou Ndiaye maam ñaaw bi ko jëlee na ma dama ko indil ma ko du ko jël ndax combat la ma papa yàdda ameel kon tollaguñ ci lekk tollaguñ ci kii lekk yaakaar naa ak seeguñ foofu te buñ foog si woon aw ma aw ma ñàkk kersaak nit diwaleeg xaalis bi aw ma yooyu yooyu doxalin xaw ma nu ñu koy waxee noonu kon yaakaar naa loolu am na ba yëfi déranger Matar Ndiaye ba mu ñëw fii sama place ne fi lay waxee bi mu ñëwee wax it mënu ma ko tee waxee sama place dama ko bàyyi mu wax ba pare. waaye xamoon nga ne dafa war a non man nee naa bul wax woo naa sax ay nit neen wooyee Matar bu mu wax pour rek léegi nekk ci jàmm ñu gérer ko ndax tey yëf dem na ba àgg foo xam ne ni man nax bañ a àgg dem na boo xam ne nii ay nit di ci warante def ko contentieux def ko histoire boo xam ne ni àggu fa ndax lii du problème bu raw du problème bu garaaw ndax li ma wóor mooy bu yaay papa yaa du génnutoon bi du àgg fii Mata Ndiaye bu defuloon sorte bi mu def ma tere ko doo yëfi du àgg fii ndax suñu mënoon ni man mel ni maam ñaaw wax ji ne rek la ne cooc te benn nit moo ciy wax te bu ci waxee dañ xam ne wax na te dañ xam ne papa yaa du yóolul Fallou Ndiaye benn dërëm. mais mu tëdd fekk fayu ko du tàlli te xaalis bi maanaam ñi ko war a leeral nanguñ koo leeral xëñ na loolu moo waral sortie bi mu def ko erreur de communication nag am na ci mais benn côté dañ koy comprendre que ne xëñ na moment bi mu nekk la ak tamit jaaxle na xam nga di nga wax ba wax loo xamante ne après nit ñi dañ lay comprendre daal ci moment bi nii xëñ na man pël man pël maire bi maire bi mhm. dama ko comprendre bu baax di ko masaw bu baax di ko jéggaluwaat bu baax a baax ndax yaakaar naa ka ma àndaloon su fa waxul lii yëpp du ci am moo tax ma koy jégaluwaat di ko waat bu baax di ko jaalewaat luñ bokk bu baax ndax sama yaay la te sama yaay lay masa doon cëróob laa ko jox tomb laa koy xoole ba kere may sàngoo suuf mais nag li mu wax wax dëgg yàlla gisuma lenn lu ci ñaaw benn heure daal la ci def mooy Fallou Ndiaye nee na Matar lekk xaalis bi ndax Matar loolu la dagg envoyé ma ko pour wane ne man dama ko loolu laa wax ca maire ma ne ko ba ma ne ko ca maire ba waaye nag li ma wóor mooy pël comme ni ma ko waxee fay laa ko waxee Papa Yade yooyu lu ma benn dërëmu Mali yooyu ma man Fallou Ndiaye te bu ma jógee Tëngéej kera xam naa ne Papa Yade yooyu lu ma Mali te it leer na yaayam bi ma fay jógee. ndax woo naa yaayam maam ñaa toog yaayam bi ñu woo yaayam def ko àppale ba mu leer naññ ne Papa Yade yooyu du Fallou Ndiaye benn dërëm kon yaakaar naa luy leer rek la na amatu ci woon. moom nga joxante woon sa xaalis. Mhm. kon xaas bi bu tagee ci loxoom dañuy ne moo lekk xaas bi. Mhm. wala boo xaas bi yow jotagoo si ndax loo jotagul moom mënagoo see jot. Mhm. amul wax lii wala xam nga dafa def man. xam nga pël. Mata Ndiaye ak may dégg maam ñaa ngi may dégg Mata Ndiaye keroog mi def sorti comme dañ ko def loo sorti ay mbokkam war naa ndaay deux cent quarante mille li mu ci yor woo maam ñaaw ne ko deux cent quarante mille yaa ngi nii comme yaa ma ko lebalan loolu mooy wax ju leer maam ñaaw génne ci yor ne lii laa mu leer. yaakaar naa loolu moo gën damay def soo sotteeg damay dugg fii damay génn fii mm-hmm. wax dëgg yàlla bu dee dëgg rek la yàlla bëgg mais benn ni mu waxee mm-hmm. noonu la mën a waxee dañ koy comprendre ñun ñëpp li ma ci wax it dama koy leeral li ma ci waxut du ma kenn mënta tax ba ma wax ko gisuma ku ma koy rusee nag nit du ma wax loolu ma waxut mais dëgg du neex yow promoteur nga wax dëgg neex yàlla yaa moom sa xaalis yaa xool fu la neex nga dugal ko yaay xool boo sentir nga jox ko ko am nga droit nag laaj sa xaalis loolu am nga ci droit wax dëgg neex yàlla mais ñoom it ménager yi foog koy teg ci yoon parce que tey bu loolu noonu lépp bu leeroon ay wax yi yëpp. non pël xam nga lu tax xam nga xam nga pël lu tax loolu ëgg si guñ ci woon. Mhm. c'est-à-dire gis nga su mee bi waxul woon kon tey jii fekk na fa bi rek la na bu yàgg xam nga tax ma ne waxuñu ci woon man waxuma ci woon pour jot sama xaalis ndax mosuma woo nit ne ko xaalis bi ne ci papa yaar laa soxla. Mhm. du yaayam du papa yaar doomi dund du maam ñaar du mataan jaay mosuma woo nit ne ko sama xaalis laa soxla. ndax damaa jàppoon ne damaa jàppoon ne combat la ma mel déggoo na wax parti bi ma àndal président moo fa wax ne li li nga xam ne moom la Papa Ladoum yore Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye baal na ko. d'accord maire bi est jàppoon li ngeen oo Matar Ndiaye def ko lu mu ci yor mhm. parce que nanguwut a leeral. est mhm. moo tax. non looloo tax looloo tax sax maire bi wax. Mhm. te maire bi li ko ci gën a métti mooy Matar Ndiaye ñëwaat ba sama papa def fi interview maire bi jàpp ne moom Matar a ñëw complot te man nit mënta lekk sa mënta yor sama xaalis laay wax nit mënuñoo yor sama xaalis mooy complot ñoom franchement parlé nag pël. yow après bi nga seetaanee émission boobu euh, mhm. mu ne maa ngi nii toog place mu ngi ne jàkkaarloog man léegi yow sa jëmu bopp yow. non Matar xam nga ci jàngatam man ni ma ko jàngate mooy comme sama place la ñëw te maire bi ne Fallou Ndiaye lekk xaalis bi il faut mu ñëw wane ne place Fallou Ndiaye laa nekk pour wax du ma ko bañal nag waaye nag du tee li muy wax ak li may wax du bokk ndax man li ma ci xam laay wax. kenn du ma influencé may wax lu ma mënut a wax kenn du man engagé wu ma man nag li may wax man it la engagé fàllu ndax li may wax xam naa ko tax am na fu ma ko teg fu wóor. yow lan moo a métti ci wax ji instant bi. li ma gën a métti ci wax ji du ci mataar du ci maire bi ndax damaa wóor ne maire bi man waxaat naa ko maam ñaa toog ma xamal ko ne papa Yade yóolu ma benn dërëm kon maire bi xam na ne papa Yade dafa yóolu Fallou Ndiaye benn dërëm mais nag maire bi li mu bëgg mooy askan wi population bi xam ne papa Yade yóolu Fallou Ndiaye dërëm te yaakaar defal nañ ko ko loolu bëggoon defal nañ ko ko ñaareel bi mooy

il faut nga wax li nga ci xam leeral ci ndax gën ñi nga ñi nga xam ne ñoo ci amul benn dërëm ñooy wax gën yow mi nga xam ne sa xaalis dafaa nekk te laa jox kenn ndax ay nit jógee nañ fi ne Fallou Ndiaye day am tëngéej ko ci xaalisam ay nit di influencé fu ne nit di fa ne di wax te ñuy wax xamuñ ci li ñuy wax dara dara maanaam kon daal mooy maanaam nit balaa moo wax forox lu ko leer. waaw def lu ko leer duñ ko wax tamit arène bi euh, liñ ci tiré seen woo ne Fallou Ndiaye Madane Ndiaye dañoo complot Papa Yade loolu dafa ñaaw. dafa dafa ruslu sax ci nit di ko gis yow nga ne journaliste nga di bind loolu wala ngay jëli loolu dafa ruslu ci wàllu titrage ñaareel bi mooy ci audio yooyu ñu doon def képp koo xam ne ni mu ngi arène bi dafa liggéey ci ñi doon wax wax ji ci la bokk di yàq di do Fallou di leen wax lu leen neex te ñoo ñëpp di ko wax Fallou Ndiaye sequ ci ñoom daa ñeneen ci des teranga laa seq ñoom fu ma leen fekk dimbale leen barke alxuraan am na ñu ma ci dégg kon nag seen xel moo toll foofu rek. nan nga gisee jamono ji kon nit ñi nan lañ war a def. nit ñi daal xam nga dañuy fekk loo xam ne du ay ñu def ko ay ndax mbiru Baba euh, Yade bi barke alxuraan du ay te du problème pël te amul benn benn lu ci waral fi mag si fi mag si fa gisuma ko ci man ndax li ma wóor mooy man ni ma ko maîtriser ñi ma ko seqal maîtriser ko noonu jàpp naa ay ay maana ja bañ am ay wax maana ja bañ a am. dégg naa sax dama dégg nag ne ngi doon déggante. avant muy gaañu. barke alxuraan koy papa yaat ñu ngi doon déggante avant muy gaañu whatsapp barke alxuraan ak téléphone barke Mouhamed ñu ngi doon wax. ba nga ñu ngi doon waxtaan ci yu bari nag pël mais li ñu doon wax moom du ma ci wax mais ñu ngi doon wax ndax dëddu na ñun ñaar ñoo waxante li ñu waxante mais yàlla xam ne ñu ngi doon waxtaan di waxtaan ci jàmm ak salaam nag di kaf di ree mais suñ boobu jëlee na ko fi du mu wax leen lu dul suñ boobu jëlee na ko fi di ko ñaanal fa mu tëdd mais mosuñu seq ay nag lu dul contacté ba mu suñu diggante te loolu affaire làmb la affaire business la c'est-à-dire nit ñi dañuy fàtte liggéey professionnel ak euh, relation dañ koy jaawale bu baax a baax tey Ndiaye production moo tëgg Papa Yade Ndiaye production moo am contentieux ak Papa Papa Yade mais du Fallou Ndiaye moo am contentieux ak Papa Yade mais Ndiaye production ku mu jox xaalisam dina topp ba mu leer. Euh, boo amee message booy lancé askan wi di euh, wàllu axlu làmb lan ngay wax. li may wax daal mooy nit làmb yi nañ xoolaat seen toogaay bu baax. ñi ci nekk muy mbër yi muy menacé yi muy euh, amateurs yi muy promoteurs yi ñëpp ku ci ne nga wax toogaat sa xoolaat bu baax te nit buy wax day wax lu mu xam nit day wax lu mu xam nit day gëstu ci lu mu xam waaye woo di Matane Ndiaye fii la toog gaa yi di ko ku ne di ko wax lu ne ci ñoom ne promoteur la ñuy ay menacé lañ te ñuy wax seen yoon nëwu ci xamuñu ci dara pour lan nan jël Matane Ndiaye jaxase ko Fallou Ndiaye lu ñu influencé ko lu ñu wax ko te mën naa ñàkk nañuy fekk jàmm ñu ci sotti jàmm waaye bu fekk jàmm di sotti ay te noonu lañ taxawee man nag lii dama cee deful tax may daw wala lu tax may nëbbatu wala lu tax ma ci wax lu may xeebee li ma ci xam donc laa ciy wax tam leeral ko mu jeex du ma ci wax leneen. non taxawaayu Fallou ci làmb moom xam na bu baax position xam na bu baax fi ko nit ñi teg xam na bu baax fi mu teg nit ñi dinaa jël samay matuwaay pël ba ñëpp xam ne jël bu neexee yàlla <laughs> ci làmb nag ci côté yëpp. say matuwaay. waaw jëloo ko say matuwaay. non dinaa ko gën a jël c'est-à-dire boo déggee naa ko gën a jël mooy dinaa ci wàññi lu bàyyi ci làmb ndax làmb barke alxuraan daf ma yàqal mais defaruma dara te sax suur nga dégg ci ay wax tama pël ñi nga dégg ñuy wax ak fàllu ñëpp ñooy lekk faayu xaalis fàllu paye ne la bë ne bëréew ma wala ñii lekk ko paye fàllu neen delloo ma sama xaalis ñu ne mën ñu ko delloo. Euh, man laaj la benn affaire lan mooy waral loolu comme ça ngeen euh, joxante ay xaalis après mbër bi taxaw ne bëréew ma maanaam signature bi moo dul leer wala fi ngeen ko war a signé ngeen ko dul signé ba tax muy am sañ-sañu ne moom dootul bëri am fu leer foo xam ne da ko teg. non pël ku man doon tegoo ko fenn fu leer da naan dama ko teg fu ma neex mais tegoo ko fenn fu leer ndax boo ñëwee toog sa moom mi góor wax li ngeen di wax CNG ubbiwut wala ngeen wax waxaay seen combat ba juboo dem gis nga pël fii làmb ji nii li ko dayoo bi ñu fi muy Modou Lo la. Ama ba ci bi gën a benn mbër bu jot dañ leen a ñamal. doog njëkk doog bu doog njëkk amut ku ko wax ci promoteur yi waxul am maa ko wax promoteur yëpp dañuy doog njëkk promoteur yëpp laal amul sans amul pôle nag gisuma promoteur bi fi joxe avance mat. c'est-à-dire joxe ci combat cent millions ne damaa joxe cinquante millions liquide amut mosuma koo gis mosuma koo gis man Fallou dañuy masalante ba làmb ja ñëw mbër yaa ngi may dégg promoteur yaa ngi may dégg li may wax na bu ma ko waaw mais dañuy gis benn effet bu ndaw ñu jël ko yaatal ko andi ko ci standard teg ko foo xamante ni yëf yi àggu fa di mm, traité nit ki mu leen neexee te li ñuy wax dara amu ci amul fii dégg naa sax ñoo xam ne ay reer dafa ma jàpp. ñoo xamante ne nii nee na Fallou Ndiaye ma day dogal njëkk te ñoom combat yi ñu béy nii sax dañ leen a dogal njëkk ñoom seen combat yi ñu war a béy dañ leen dogal njëkk léegi ñoom nee na Fallou Ndiaye xas ne Fallou Ndiaye day dogal njëkk yorul nut non doo sax comprendre mais yàlla baax na pël léegi kanam la wuti bët. yal nañu taxaw ñun ñëpp daal. maa ngi lay jaajëfal. amiin di la kontaanee. d'accord lan ngay gën a